mbokk yëpp ñi fi ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant man nag sant naa cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax maanaam réer ba xëy fee sa biir mbokk cant mënta romb loolu cant mënta romb réer maanaam feeñ cant mënta romb loolu ndax sama maam sama maamaat ci doomi ma sill mbey la bokk manam kenn moko mag muy Penda Aram sil koku mo nekkon jili xaar ku ko ci doomi ma sil mbare yi moy naara sil ñu diko ko soxla sil koku mo jur sama mam ndax dama bëgg ñu déglu ndax amna na xamni xamnañ ma ni ne ay mbokk la waye xam ñu ma bokkee ak ñom dégg nga ñiko ko fi xamni ni ma bari wul ma bëgg ñu téwlo mu ñu dégg ni ma ni ma expliquer ba ëllëgee ñoo xamni ni ma déma ak ñom bonk ma wat ginaaw leen sama nara, nara nyarel ñaarel doomi ma sill mberi kenn ko ci mag muy penda aram sill ma newon julli xaar ah nara momu fu mu nekkoon góor gu ñuy wax serigne modou ñang dekk ndok moko yoron abdi waaw modou ñang dekkon ndok di mbok serigne mëndumbe mbàkke di ab di di talibem manam mo yoron nara sill am ci muy botor ñang Batoor moom moo jur sama yaay wante nag ci wàllu baayu Batoor pour nit ki boo koy xam da ngay xam kër ndeyam kër baayam kër ndeyam mooy fii waaw léegi nag nu ñu ñu nu ñu sama maam nu mu réere maanaam baayub daambee mooy aldoom mooy rakam moo doonoon borom këru moo doon borom dëkku mbaabaat yi te xam ngeen ni borom dëkk gan gu ñëw moom lay dalal te sama maam naara maanaam mooy magi aldoom waaye ñoom dañu joxe cër même goor gi boko ko sax dang koy jox cër bëggoon na ngeen dug ndax amna na ci ño xamni xamnañ ma ni tax xamnu ma demee ak ñom bëggoon ñu bu baax wante nak nara mom kan la bokal day ak bay Penda Aram silu. magge sil mi jur ñom Aram sar ak album sil ak Mar Sill ñoom ñoo juróom ñoñu ño bok nday ak bay ma sil mbere moy sen bay ma jigen sala moy sen yaay man lol leer na man nag dama réeroon mais lee ma ba nak sama mam, nu mu génne mbaa baari dama koy leral ndax àddina day dox tay nattu nattu manam nattu bo bokut ak dogal sunu borom dara du natu sax ndax mam Aldo mo don beurom dekkou mba baari mu am ganu nar ba gan nga ñewé dal dekk kër ga gan ga da amone ay xesanan yag fa lol maam aldoom ne ko naara doo dimbali kii fóotal ko sërëm yi maam naara jël sérieux fóot ko ndax nee nañu maam naara dafa rafetoon rafetaay boo xam ni sama yaay maam soxna Njóob daw da ko daan wax sa xeesaayu maam ba ak sa rafetaayu maam ba kenn jëlu ko ginnaaw ba naar ba demee yaram yi commencé di am xesa naan bu xoolee boppam rek bu cax boppam na man si li ma ne sama rafetaay ba sama taar bii bu fi nar a yàqu ma gental ñu ne ko li du dara boo fekk na ñaari doom la am muy Batoor ak Sandoumbe Diagne muy ñaari doom képp Batoor di am juróomi at Sandoumbe Diagne am ñaari at booba yaayam ma jigéen Sall gi dund ñu wax wax li dara mu ne sama taal bi bu ne la yàqu ma gental xam nga mag ñoo dañoo fonk seen kàddu mu bàyyi ba ñëpp tëdd mu bi buntoom aw buntu ginnaaw bi dem boot parental bi ŋàbb ŋàbb ŋàbb boot parental bi ŋàbb Batoor topp guddi gi dem booba oto amul di dem xamna yalla sunu borom mënoon na la sarabi ali lek leen deeng ba asaman set mu naajee ubbi ñu ne waaw naara mi de ñu fa gisunu kenn ñu ko ñu ne mo na naara la def na dem na goor ñepp di wëri top dañuy dem a dem ba fekk fu mu la teddo gone yi ñu yendoo dox ba ngon gisunu ko ñu dëppaat ñew yaayam ma jigéen Sall na nga da doon joy ba bala moo dee da silmaxa loolu lépp ci tu sans borom Mam al doom tamit comme coobare ci mom la jaaroon topp doom tam noppaluwul di wër di laajte di wër di laajte bañ ne ko ñu ci dëkk bu nekk dëkk bu Cees maam al doom dem fa dem fa ba mu ne ko fi mu toll nga faju nga ba wér nga mu ne ko waaye sama taat bi moo yàqu xeesaay bi moo moo ñaaw loolu du dara mu ne du ma dellu maam al doom tamit di fa dem maam Seydou nee na ma bu maam al doom daa toog bu guddee mu leen bu ngeen fajaree bu ngeen gisulee ma dem naa Cees maam Seydou nee ma waa na waa baay fooy dem ci Cees ma ne ko da ngeen am bàjjël bu ñu wax naa rësil la moom laay seet nga ba nga xamé né mam naara nelaw na maam aldoom fekk na mam batol am ko ko fa yoré mam aldom ñew nangu ko mu dem waxtaan ak mom bu démé bu ko nangu yóbbu mbaa bu toogee bu mu mu dawaat di def no def na ba sama yaay mi duggu kër légui sama mam né ko sama jaay da ci na ma ci may daw di dem sa jëmma tax ndax sa borom kër jullit la yaaram la bugguma tas ab séyam waaye nag li ma wóor mooy gisatul da ngay wacc mbacke nga laajte bitigu kaseti soo demee rek boo laajte ana ndijaay moor jaara sàmb di nga feeñ sama yaay noonu la feeñee bon na ngeen xam ne xeet wu réeroon feeñ a ngi nii dégg nga penda aram ak naara dañoo réeroon penda penda aram sax bari na ñu ñu ko fi xam ay sëtam ñoom satu mbeng waaye naara moo réeroon tey nag feeñ na sant nañ sëñ bàmba bu baax bi mu andi andiwaat nu ndax dem nañu may liggéey ndulo sama yaay ne ma ndey jóob sama sañoon nga ñaan affectation dem daam xam sa néegum day lolu moo ma andi fi ma nek service bi fi liggéey nek administration lolu lembe sant señ bamba la da doono andi wañu feñ mu defalano lanen ñi dem di dem ba sama rakk nek service départemental élevage Mbàkke ñu bari xam nañ ko fi mu yilif Mbàkke yilif dëkku mamam loolu ci sant señ bamba la man mi ma dem ba ñu ne chef de CA chef CADL Kayal régional Diourbel wo ma ne ma ndey sa jom man de dama bëgg dem Kayal té nenañ may fofu moy sa cosaan mbabaari nga dekk ma bëgg ma fa demal décision mu sama loxo man tamane ma man fofu awma ma mënu ma dem ñu jekk wa nañoo ma chef de sur départemental sama décision mu sama loxo lépp ci sëti ri yi ba nak ñun ñëwaat nañ ko sunu askan di santal seigne Bamba bu baax top nak nga xamné ne naara moomu nitu yalla ko yoron te nitu yalla dégg nga boko yoré di nga melni mom ndax lu yagg ci njaw di njaw ndax lu ko katub jaan rek bu yagge jabaram ak mu kum kum bala jaan nga jog bon nak naara modu ñang nga xam ne señ bondu Bounde ñoo bokku lepp de nga moko yoron di bandu be bon moy baye botor bon nak jëlee na fa mbax mbax yo top ay sëtam sant nañ señ Bamba bu baax sant mbolo yu baax jërëjëf di ñaan nak mbolo mi ñu yàgg ko fe tew liggéeyu barkel te ñu bokku ci ñi nga xam ñoo doxal liggéey señ Bamba bi te dara bay la yàqu te ñu bañ fa ba yaq dara barke señ modu Bamba jere gën jëf alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala muhammadin nabiyillah mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki ci leen ak mbooleem ñi fi askano ku ci ne ñu ngi lay nuyu ngeen gaa tedd nuyoo di taxiyatan min indillahi mubarakatan tayiba di asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw loolu itam ñi jotal ay kaddi cant ak itam kaddi yonent yoo xamee ne mu ngi bàyyi ko ci président danoor bi de sunu nijaay maam góor Sylla ak itam ci kaddu serigne Abo sil serigne maam góor nee na ngi sant mbolam mi ndax kat li wolof di waxna na mom ko wolu ba taxna na nagani si nii daaw la mbolo mi ñepp mang ko won ci ne nañ ko jital mu nekk seen jawri neena na ngi leen di sant bu baax a baax a nee na cant gi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem te itam aw làmmiñam ak pas-pasam ak yéeneem lott na ci jottalikoo ko ba tax na kon mu yónnee ko nee xam naa mu ngi ko doon ñaan mbokk yëpp ndax day baax président moom fu mu ne mu nekk foofa ñam jiite mu leen di gis di déggoog ñoom di waxtaan ak ñoom te mel na loolu ngàntal génn tax na loolu mu xaw a mu xaw koo tënk mu xaw a jafe ci moom ba tax na nee na bu sañoon ñi nga xamee na ñoo ŋànk bi bi ñu seet keneen koo xamee ne woolu nañ ko doyloo nañ ko loolee ñi ko dénkoon ñi dénkaat ko ko bu ko defee moom li mu man te itam muy pas-pasam muy yéeneem muy waa Bisaawo yëpp yëpp mën na leen a jiite lañ warloo foofa mën na di ci def kem kàttanam ba di nga xamee ne taxawaay bu am solo bi taxawee nañ ko ren ji noonu itam ñuy continuer di ko taxawee kon daal loolu mooy kàddu yi nga xamee moom la ñu yónni woon bu ko defee itam rek ñi gën a jàppaat gën a booloo te xam ne yëf yi moom sunu yëfa tey li Cheikh Mouhamadou Fall Sylla mi doon wax léegi ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax mel ni mbokk mu baax day wax ne nañu nangu kilifteef kii la yilif yilif la du tee nga doon ki nga doon te itam ñi toll ci liggéey nañ fonk liggéey ñi toll ci ati jàng yitam nañu fonk am jàng te yàpp naa ne jamono moom bo fi génnee ñett yoy ma wax dara door fi dess kon nañu daanel suñu kaddu fofu bu ko defé ñu woyee liggéey bi alaykum wa assalamu alaykum mbokki jullit bi mbokki talibé yi suñu mbokki bopp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar ni ko ñepp waxee rek daanaka jërul bamu di ñaanal kilifa yi rek suñu borom defal leen tawfiq barke sol xadim li ñu wax na am na ñeñ xana suñu wax ñu koy jëm manam ci ndaje mi biñu ko sofé sos ko di dox ay at yu bari mu yem ci génn kër ci benn néeg ñu dem ba borom xam-xam yu rafet bokk ci famille bi bokk ci sañ ci liñ ci sañ ñëw fi xamal ñu lii kan nañ ko def loolu tubaab wax décentralisé yaaxal ko ñëpp bokk ci booba ko doon doxal daanaka génn kër gi la woon bañ demee ba suñu borom dogal ñu waxtaan dégg ci digal ñu loolu ñu ko ñu doxal gon yi dugg ci te ba suñu boroom dogal ñu dem ba yaatal ko gone yii di suñuy rak ak lenn ci suñuy doom fekk suñuy euh, yor ko di ñu ci jàppale nga xam ne maanaam muy alaaji fàllu mi ak sëñ Abdou Fatah nga xam ne kenn ku nekk mën nga ci ñoom luñ ci mënutoon ñoom nga xam ne dafa ñu mel na ñun yéen juñ ci amoon rek ñu ci dox lu ko lu ko doon ay jàmbaar lool mooy waral ñu deen leer nga xam te ne bii maanaam ñoom li leen ci yaatal duggal leen ci ba nga xam te ne maanaam euh, liñ ci man ñun mënuñ ko ci looloo tax ñu leen leer mbir mi di sant it ñi nga xam te dëkkuñu ci réew mu ku mel ne maam góor nogay mais ak fa mu nekk ci Guinée ak ba ci ñoom euh, mbay ñoom ñu nekk Espagne ñëpp kenn ku ci nekk maanaam bi mbir mi egsee ci say nopp bu ñu dugal nga ko fa nga ko war a dugal yegg nga ko fa nga ko war a yegg ba dox mbir mi egsi fii ndax kenn ku ne xam na ne jotaay bu ñu ko daan def ci biir biir kër benn baas lañ daan def te dem nañ ba xam ne boo kon boo xoolee par rapport ren daaw ak ren rek xam ne ko mbir mi am na soppi kon lépp solo mooy dox booy dox ànd ko ak say bokk te itam maanaam lii li nga communiqué la kuy yëg yëgal kat sos ci yow kon gone ñoo ngi leen di sant jàmbaar lañu yéen ñëpp na maasi leen ñaanal ku ci sa doom nekk te nga maasi ak ñoom ñi itam nañ leen gën a xéer ci ñëw ci tour bi di waxtaan ak gone yi di ñëw ci réunion yi ndax doona luy dimbale mbooloo mi tey xam de ba xam jeex yàpp na ne xam say bopp xam sa bopp lu ko dàq bopp euh, ba bëriwut ni ko soxna ne maa ngi wax ci Abdou fataan mii léegi tam rek dañ koy gën a sant ndax kilifa la euh, maanaam sagal na jotaay bi waaye li ma gën a neex mbooloo ñoo ko xam li ñuy wax communicateur maanaam xam maanaam dafa jëkk ba jël ay téléphone di woote ki fu fu ku ci mbar wopp bu la xam ne da la woo lépp maanaam war na ne kon maanaam kon cawartaan buñ ci am am na ci bu ko raw ak yitte yi kon nag moom rek moom moo waroon a dem ba yu wax dëgg yàlla yu bëree bëree bëri moo waroon ca noppal boppam di ci gën a sonn kon ñi di ay taalu bi ak ñi ak yéen ñi maasee moom jamono war ngeen na mën a góorgóorlu di ko fekk ci liggéey boobu kon maanaam wax ji def naa xaw a bett ba li moo goon wax lépp mënu ma ko wax waaye daal ñoo ngi leen di sant ngeen doolee góorgóorlu yéen ndaw ñi te xam ne mbir moom seen mbir mbir mi seen mbir mbir mi seen mbir yàlla na yàlla sàmm defal si ko defal